Oui. Allez. Ah. Ah. Non, Bismillah. Assalamu aleykum mbokk yi ñuy déglu noo leen di nuyu noo ngi leen di baalu àq itam bëgg leen jottali yóbbante bu jóge ci sëriñ Babacar si alxalifa wax ni nañu ko masawu nit ñi baalu leen àq